xanaa di wax rek waaye chaque jour du ñuy jóg ci di wax waaye wax nag waxaat yàqul dara ci ay wax Fall 94 Walf Sénégal dellu si na di leen siyaare bu baax di siyaare mboolem kuy topp Fall 94 Walf Sénégal asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu waa diaspora bi di nuy mboolem képp koo xam rek yaa ngi topp vingt Fall 94 Walf Sénégal ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di leen siyaare bu baax baax seen analyse chronique bi nga xam dañ leen ko defal saa su nekk ci réew mi ak bitim réew jaajëfal na leen siyaar na leen ñu dellu si rek ci euh, euh, li nga xam ni ñëpp gis nañ ko muy ki nga xam ne ni euh, député la mooy Guy Marius Sagna di koo xam ne moom dafa askan wi moom postu tiitalu ko boo ko xoolee da ngay xam ni moom maanaam daanaka mën naa ni député bi mu doon sax doon na ko waaye moom sàkk suur bis bu yàlla sàkk rek da ngay gis ni Eh, taxawu askan wi ak féetewoo askan wi daf koo ñor lool te nit nag bu amalee njariñ nit ñi nit ñi dañ ko war a amal njariñ tamit waaw te moom amal na njariñ nit ñi ci ay discours am ci doxalinam ci ni mu yërëmee bu baax a baax a baax askanam ndax loolu dafay feeñ ci ay waxam ak i jëfam ak yéppam sénégalais la chaque jour bis bu yàlla sàkk daanaka mën naan lépp loo xam dafa am ci diaspora bi sax moom nga ci njëkk a gis mu am ci taxawaay bu mat sëkk te loolu la Sénégal vrai Sénégal di def ñu gis ne nag wax dëgg yàlla euh, fi mu doon dem ci kër Ousmane Sonko gis nañ ni bi muy dem sànni nañ grenade voilà dal na ko wala dalu ko mais en tout cas daal tànkam moom gaañu na ci euh, euh, yaakaar naa ni nag man li may wax chaque jour dama koy wax rek gis nga lii avancé lul réew mi doxalul réew mi bu fekkee développement bi ñuy wax jaaragul sax ci yoon mi ndax man jàpp naa ne ñun ñëpp ay sénégalais lañ ci réew mi lañ dëkk li ñuy xëccoo yëpp ci réew mii lay desaat. réew mi képp moo ci am victoire lan moo tax nag ñu nekk ay sénégalais ba pare mënuñoo xajoo dara wun dara ci suñu biir loolu nekk na loo xam ne doy waar la waaw kat bu nee nag réew mi dafa war a avancer tey ji heure bi waroon naa fekk député yeeg ñi nekk cukk jégeeg pouvoir beeg ñëpp ñu seq table ba waxtaan ba war a liggéey seen suñu Sénégal ñu dem suñu yoon voilà mais amaana nag lii yëpp li ko waral mooy politique rek bëgg ay postu bëgg di sax ci politique te chaque jour rek li may wax àdduna bi chaque jour bind bu tooy la chaque jour rek suñu borom di la wan boppam ci jaam ñi mais dafa am ñoo xam ni ba léegi rek du ñu gis loolu noonu euh, toll nañ ci benn moment boo xam fi mu toll nii nit ñi dañuy wax ni yàlla yàlla yàlla mais ko sax gëmuñu ko sax euh, ndeysaan danaa fàttali chaque jour saa su nekk rek Serigne Sam Mbaye mu baax mi daan na wax naan dana dem ba toll ci jamono boo xam ne nit ñi danañ sëgg ka siggi waaye li ñuy def duñ ci gëm dara danañ danañ woor danaan def lépp dana maanaam lépp lu jullit def la ko dana ko def waaye dana fekk lu baree bari duñ ko duñ ko gëm li ñuy def ñu ci gëm dara voilà voilà nga xam ne mama boobu noonu jamono boobu noonu da ngay gis nit ñi di sëgg ka siggi te lañuy def dara lañ ci gëmut te loolu nekk na loo xam ne lu doy waar la mamaa bii ñu toll nii nag bari na ci ay bàyyi karawaat yoo xam ne fi mu toll nii da ngay dégg ñuy wax yàlla baax na maanaam ni meewa dara gëmuñu ci dara parce que lii problème bi mooy ñun réew mi bu ñu ko bokkee bari na yu baree baree bari yoo xam dañ koo war a sëgg mu jàll am na yoo xam ne sax du respect am na yoo xam sax baaxul ci saw askan parce que fii eh, saw askan rek ñoo fi nekk lu mën a am rek bala ñuy yëkkati dara di ko sànni ci doomu aadama yi nga xam ne yàlla leen bind dañoo war xool bu baax a baax a baax ñun ñi nga xam ne nii ay doomu aadama lañ comme ñoom poste bi ñu nekkee wala ñoom fi ñu féetewoo ñoom bu fekkoon tey ñoom ñoo féete fi nga xam ne foofu la population bi féete boobaa nan lay nan lay demee loolu yëpp dafa mat di càmbar euh, nit ku nekk rek li li la fal loolu rek war na doy sëkk euh, li lay yéem war nga koy càmbar saa su nekk kan da nga tàll leneen lu dul loolu dama ni Sénégal ñoo ko bokk xam nga tey ji député kii la dama kii dèjà réew mi protégé na ko ba pare ndax fa mu nekk tey sénégalais yaa ko fa teg. bu ñu demee ba ab député nag ñu mën a jël ay kii di ko sànni c'est que bu ñuy sànni seen yooyu noonu ku nekk fa mën a nekk voilà léegi ku mu dal daanaka mën naa ne dangay ngay gaañu aywa yooyu perte kon nañu gën a euh, dellu si sunu xel te xam ne réew mii gis ngeen lii ñuy def nii avancé lul réew mi de da ngay delloo ginnaaw mi avancé lul ko voilà kon nag yaakaar naa ne nañu gën a bàyyantewaat xel bu baax a baax a baax gi Mari Sagna ñi ngi lay masaw bu baax a baax. yow moom ko matama saw nga jàmbaar nga sa position ñëpp xam nañ ko sa taxawaay vraiment député nga boo xam ni moom histoire dootu la fàtte histoire réew mi dootu la fàtte kon yaakaar naa ne euh, bàyyi ci xel bu baax te loolu lu neex la mais fii bari na fi ñoo xam ne tey jii ci ci nguuru Senghor lañ bokkoon man am na ci ñoo xam ne nii kenn gënul ween a jiga Senghor ay post yu baax lañu yoroon am na ñoo xam ne xamuñu ñooñu sax tey jii parce lan moo tax lañ waroon def defuñu ko marqué wun seen empreinte maanaam fexewuñ ba jeunesse bi jàpp jàppuñu woon ne jeunesse bii ñëwaat àll dinañ leen xam liggéeyuñ ci loolu voilà ña nga xam ne liggéeyoon nañ réew mi liggéeyal nañ réew mi jéemoon nañ seen kéemtalaay kàttan tey jii ba jamono yi fii tool ba génération bi xam nañ ñooñu nga xam ne kon euh, liggéey lu am solo la nga defee ko nu rafet ndax àdduna bi dafay avancer dafay dox àdduna bi xaarul jamono day dox nit ñi dañuy màggat. loo am kàttan kàttan bis day ñëw nga màggat loo am garaat garaat bis day ñëw sa garaat boobu day wàcc dalay wàcc voilà léegi kan lan moo fi des parce que maam day ñëw doom baay ba maam doon xale bu ndaw doon waxambaane dem ba doon maam boo doonee maam moom si fini loo liggéey lu woon si sa xale euh, ba ni nga dookee baay ba ni nga nekkee maam daanaka mën naa ni bu la nit ñi du fàttaliku di wax say jaloore say jëf mooy perte ga voilà kan nañu bàyyi xel bu baax a baax lii amul benn njëriñ nañu avancer réew mi doxal réew mi ci démocratie bu mat sëkk ci jéggalante ak jàppalante lii ñuy def nii baaxul ci réew mi image yi saa su nekk chaque jour parce que kii moom député la am image yi moom gaa ma a xam gars yi réseaux sociaux yi moom dañuy tas rek lu ñu gis dañ koy envoyé mu dem ci àdduna bi partout dans le monde àdduna bi benn kubéer la benn bunt la tamit lu fi waaye def réew mu lu mu sori sori àdduna bi yëpp danañ ko yëgandoo foofu la àdduna bi toll te day gën a avancé day gën a jëm ci kanam kan daal yaakaar naa ne lii leen leen indiloon ci Fall 94 Walf Sénégal